Euh, ndiku ku ne xam na ni jamono ji ah, xew nga mhm. euh, xew nga macha allah tubaar fakal la euh, nga ràññeeku ci lépp loo xamante ni nit ñi dañ ciy yëngu tey kan mooy ndiku ndiku tey ak fan la débuté ak ndiku tey succès bu ko wuyu nan la koy dundee waaw métti na métti wut ndiku maa ngi juddoo fii géejawaay yaroo fii géejawaay màggee fii géejawaay succès bi man daf maa dab jóguma woon sax pour siiw mais comme dama tàmm doon dem soirée heure bu ma solo wala ma jënd yére bu bees ma dagg étiquette harmoniser sol def greffage def sëba taxaw branché sama ring line photo wu sandi bu ñëppoon ñëpp foog ne man ay bitig laa dama doon publier ay nit nii xamal li ma la ci bi ci bi ci bi tiktok bi ngay jëlee sa yére bi nga sol dindi étiquette bi sànni non bu ma jëndee yére nii laa la wax mu bees ma dagg ma solu harmoniser ko boole kaak sama body yi wala sama jean pare taxaw sinap surfi sànni ko dugal ko ci tiktok bi compte bi di dem di law ba noonu ma dem ba xam ni xama rek moomatuma sam bopp quoi mhm, mhm. Mhm. boo xoolee samay tiktok du ma wax damay solu habillé wu rek dugaloon vidéo mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. da ngay dugal euh, tout le temps ni euh, gis nañ ni da ngay da ngay da ngay da da ngay euh, wax ci li nga xamante ni mooy génn muy milieu lu tax sa base lépp ci waxtaanu milieu la ci waxtaanu bu ma waree baali su ma waree génn. parce que tey Fatou mbay man mënu ma woote dara ci lu dul loo xam ni moom laa débuté tey moom laa xam. tey TikTok bu ma nee période ba ma doon liggéey di travailler siiwalu ma. mais solu moo tax à travers solu boobu damay jënd yére comme li ma la wax rek solu pour génn dem soirée dem soirée Ibra Naajo wala may préparer di dem booy wala Pape Thiasek wala Pape Thiona jënd yére taxaw solu compte bi di law di dem parce que loolu moo ma siiwal moo tax solu bi ma daan solu rek di taxaw publier ma kenn def ma kenn da kenn fay loo ma maanaam jënd sama yére bopp di solu ñëpp topp ma da ngay jaay ay yére parfois nit woo ma da ay dàll mais le déedéet ñu ne ma yow sa néeg bi di mel ni comme Sandaga yére yi ngay sol bu tey li mel leen non non parce que moo tax à travers base boobu moo boobu il faut kon ma koy wax. Mhm, mhm. Mhm. Euh, boîte euh, mu nekk loo xamante ni euh, da ko doon dund. ci li nga wax. bëggoon nga chaque jour di génn tey nga dem Ibro Nadia suba nga dem Sidi Diop suba nga dem feneen ak feneen. loolu noo ko doon dundee. waaw métti na métti na parce que xam nga moo tax. chaque soirée Fatou Mbaye ñu jigéen dañoo bëri ay caprice. tey yaa ngi sollu di dem mais danga naan Fatou Mbaye mii de maa ngi ko fay fekk moo ma dàq sañse mm-hmm. tey naa fexe jënd lu seer mm-hmm. boo amut ak ni ngay def débrouiller pour yow Fatou Mbaye tey ba na nga ñëw sollu ba au fond au au niveau mm-hmm. ñu ne tey ndiku mii kat li mu sol moo raw tey Fatou Mbaye wala lii moo gën a seer may rey sama bopp di jënd ay yére yaa ngi may déglu di génn ak paate di génn ak demba xam ni ma la wax maa moo noonu daal nga daan def xam nga rek milieu dafa metti concurrence xale yu jigéen ñi tey loo sol lu baax wala lu rafet ñoo ngi lay woqante wala yëkkati seen téléphone li ma naan à chaque fois loolu buñ ko bàyyi moo ñuy sonal nawle kaa bi tey lii la ku demu sax day woote waa nawle démb Fatou Mbaye lan la soloon indi ko naajo ba nga ko lu bon la sol wala la mu sol ak rafet xam ma dem ba ne live bi amul sens. Mhm. du ñu mën a investir doo mun a dajale. Mhm. Mhm. yow gis nga ni tey danga dem ba gis ne loolu tey du vie euh, amul continuité après nga reculer. bien sûr parce que amul vie parce que boo calculer Fatou Mbaye tey nga xool. ubbi sa armoire nga calculer yére bi maa ngi ko jëndee lii dàll bi maa ngi ko jëndee lii lii maa ngi ko jëndee lii nga béréfi nga def sa bilan yëpp nga xam ne lii tey war naa mat valeur deux millions mhm. wala lii war naa mat valeur neuf cent mille mhm. nga xool temps bi ak âge bi xam ne moo ngi lay raw mhm. nga xam ne lii amul sens tey Fatou Mbaye li may wax saa su ne am na ñoo xam ne tey dem nañ ba si Sénégal du ma tudd seen tur ñun nag ñoom xamante nañ xamante nañ lan lañ doon dund lañ doon gëm mais tey Sénégal ñëpp leen jox baat bu ñu waxee dañ leen di déglu ni ñuy demee Dubaï di jënd ay produits wala di jënd ay tissus ñooñu gënuñu tey yor seen i bitig yi mag a mag fii ñëpp di leen tudd bu ñu waxee ñëpp jox leen bopp man loolu rek dama innové parce que da ngay toog ngeen ne xoolal kii démb maa ngi moom nekkante woon nañ mixa wala nekkante damay xoolal lii mu am pourquoi man mënuma jóg ma soulever ma wu man mii lii kii li mu am bu ma gëmee sama bopp mun naa kaa am wala nga taxaw ci seetu nga yeddaat sa bopp xoolaat sa jëmm dangaa ngaa jongo ma tax na nga xoolaat sa bopp man loolu ñëpp a ma ko wax caméraman bu ñëw sama kër seet si ma boo ma taxawee ba ma def nii ba daagu wan la ginnaaw nga ne ma oh diryanke <laughs> tigi da jongo ma ndiko <laughs> ndiku sa famille nan la ñuy dundee loolu nan la ñuy dundee euh, ndiku gis nañ ko mu mm-hmm. génn ni milieu laa doon dund bàyyi naa milieu euh, critique yi bari coow yu bari tey say famille euh, sa parents wala ñi nga xamante ne ñoom nga dëkkal nañ leen dundee faatu mbay man ñi ma dëkkal li jëntiwu ma leen mais mm-hmm. nii nii rek sama xolu yaay sama xolu yaay laa la wax daa sedd guy ak waa kër parce que xam lan moo tax sama yaay moo ngi fi waxoon naa ko sama émission bële mm-hmm. sama yaay xam lan la ma wax ma wax la ko tey Fatou Mbaye ma ñibbis sànq bi nga ñëwee lan nga ma wax fi nga dëkk dafa sori mais teewul lu ma yootu maa ngi koy jot ndax sama papa gaañoo dama sama yaay ne ma boo bëggee am sama ngërëm ñi bisil géejawaay même boo yeewoo boo dëkkul ci kër famille bi même ngay yeewu chaque jour di ñëw di yoor sa loxo ci kër famille bi ma lay gis mag garaawut mm-hmm. ma nangul loolu sama yaay ma ñibbisi géejawaay mm-hmm. jigéenu milieu boo leen toppee mooy loolu dañ lay bëgg a xewarloo ba may ñibbisi lan lañ wax mm-hmm. sa yaay xanaa dalaa jox ñaam jooda ay munoo too am xanaa milieu faytu mais ma toog man sama ñaandu yaa jur guddi gi laa rattrapé sàqu ko ma bàyyi lépp ñëw ñibbi si géejawaay te ba ma ko defee ba tey réccu ma ko fu ma bëgg a dem imagineel almadi ba fii aseg naa yëmbal yàlla may may ba ma daan dem soirée lu may passé ticket junni wala six mille dem dagg ticket VIP dix mille taxaw ñibbi si waat tey amaana waajur gàllaaj la man ni sama xolu yaay bégee sama papa gaañu na laay xool looloo tax ma ñibbi si fii ci digg ñànkatang bi wane ne doomu géejawaay laa sa relation yaa gis nañ ni yaa ngi wax bay tuur mm. sa diggante sa yaay sama yaay daf ma bëgg man maay caatam bañu ma. ndeysaan sama yaay moo wax la ko tey faatu may marché njaareem la nekk. Mhm. di jaay géej ak yéet. Mhm. sama yaay nit sax bu ñëwee ne ko yaay gis naa sa ne ko mère Binta gis naa sa doom ci site yi internet yeeg yooyu muy wax mu ne leen man de loolu xaw ma ci dara. Mhm. benn xaritam bu nekk France nga xam ne heure buy jóge France di ñëw moo koy jaay ay kii ay yoxos crevette tuufa ak yooyu noonu. fruits de mer yi pour mu yóbbu ko peese ko par kilo ambaleel ko. ñëw ne ko mère Binta dégg naa ndiku sa doom la amoo siis la ni tudd taa asu Thiam maa ngi koy nuyu au passage damay wax chaque jour. mu ne ko ne ko heure bu toggee mbaxal bi na ma tibbal sama yaay ne ko mun na togg de imbécile la. def na restauration hôtellerie yor ay diplôme waaye diplôme yaa mu dénk ma mu tëj ci armoire bi waaye daa amul jotu togg kon xam nga sama yaay yëgul liy xew mais comme ni succès bi affaire yi ñëpp naan ko mère Binta wala Massa Ndiarème yaay ndik mu dem nag ba xam ci lu muy dund mhm. mu nangul ma ko sama mag bi jigéen bi nekk Italie bi say varese dem expliqué ko na ko yaay dugg na ci ba pare ba ñëpp xam ko munu mhm, cee génn moo tax sama yaay nangul ma tey lépp mhm. mais ba mu déggee ma taxaw ne bàyyi naa milieu da cee kontaan euh, ndiku tey ban année boo xamante ne ngay sonnoon nekk ci ay difficulté euh, ba mu jaral la tey euh, boo naroon duggaat ci lenn loo xamante ni neexu ko sax nga reculer loolu lan la. waaw parce que sama yaay à chaque fois. chaque jour dama lan nga fàttale ko waaw sa yaay lu mu dund lu metti loo fekkee. sama yaay dund na lu metti loo xam ne loolu mënu ma ko wax sax. Mhm. jour boobu muy jooy man tamit may jooy. Mhm. loolu dafa ma metti daf ma tuuse boobu mook sam papa la woon. Mhm. loolu metti ma tamit. mook sam papa woon. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mais mënu ma ko expliquer muy jooy may jooy. waaw. Ndickou da nga bëgg sa yaay. Anbay sama yaay daf maa bëgg sama yaay am lan la may wax mbaam wéq na doom ji waaye bañu ko ji ko ji loolu rek la may wax. sama yaay xew bu amee sax kër ga. mu ne ma say nawle la fi nga fi nekkal foo munti nekk. daggal ci hôtesse yi même bu wanee ne ko yaay xaaral ma wéeb la sama xaalis yeex day yëkkati xaalisam participer ma te ma sa nawle nga fi nekk événement bu jotee sax tisi bu seer mun naa ko jënd mais danaan ma jëndal ndax say nawlee fi nekk xew bu amee kër ga fajar teel la ma yee foo nekk doo teel a ñëw doo ñëw jàpp ci liggéey bi Fatou mbay man saa su ne damay xool xam ni loolu man sama yaay bëgg na ma ba tey man am naa chance Fatou Mbaye am na ay xale yu jigéen yu may toogandoon milieu seen yaay yi duñ leen lijjanti duñ leen woo wala ñii ñoo ngi fen seen yaay gëmloo leen ni dañoo ñëw Dakar pour liggéey si mhm. bu wetee eh, seen yaay yi xamuñu ñoom niñ leen di yónnee mhm. man damay toog ak samay nit nii million ñu toog jotaay mhm. defar ba mu jekk gëmloo ni seen yaay yi salon lañ yor wala ñoo ngi liggéey Dakar liggéey chaque fin du mois salaire ñuy xaar mais mm. man sama yaay daf may woo may ñibbi si géejawaay li mm-hmm. xale yi naan génnal ci li nga nekk man sama yaay daf may woo toog ci mbooloo di ma cax génnal ci li nga nekk mm-hmm. Mm-hmm. Fatou Mbaye man Daaru Xan bii ma dëkk ñaari titre foncier yi jàkkaarloo lañ am li ma naan saa su ne xale yi jigéenu milieu man ba may ñëw indiwu ma mbuus yanu ko jóge dëkk ba ñu tojtal ma ma indaale seqab tiir man sama famille ngi fii mairie biscuiterie ba laay utee stress Abbas Ndaw bii laa juddoo sama famille ngi fii fii ci dakaar fii ci réew mi laa bokk sama yaay dafa ma bëgg barke yàlla ay appel ma ngi nii dafa ma bëgg Fatou Mbaye ak leneen loo xam tamit daf may marqué heure bu may def live sama mag bu jigéen bi ma bokkal nday baay di sëy Italie maay sama caatu yaay day dugg sama live parfois dama koy jël suuf ne ko Ndeye Fatou bul dugg sama live danga may yàqal sama live lu ma bëgg a mun a wax inspiré wu génn li nekk sama xol mm-hmm. parfois duma ma ko mun boo duggee yenn waxi yenn langage duma ko mun a def sama laay bul duggati. Mm-hmm. barki yàlla léegi léegi émission affaire kiiw bisu ngoone yi. Mm-hmm. moo léegi moom mooy wan xanaa di nga soxla ay assiette classique ay couvert classique yëpp di sonn ndax man barki yàlla di sonn te bu ko neexoon du ko def nga xam ni kon moom tamit yoon bu baax bii ma jël moom bëgg na te pare na moom tamit engagé wu pour jàppal ma barki yàlla di ci sonn léegi ay asset classique lu nekk mu ne ma jëlal lii lii rafet na lii fii lay jaayee barki yàlla moo ngi nii mhm. ay versel léegi mhm. ama tamit ma xam ni kii bëgg na ma man nit damay wax ak jaw téléphone ba pare mais boo coupé li ma conseillé ma jël ko utiliser mhm.